Yakar Aïmirouning, également maire de la commune de Mérina Dakar, hmm. responsable également politique de l'APR dans le département de Tivaouane. Madame Voilà, monsieur le quel est l'objet de votre visite Alors, je voudrais d'abord, euh, à l'entente de mon propos, rendre grâce à Dieu et saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire que je suis aujourd'hui la à et pour présenter mes condoléances à mon frère et ami, le maire de Chériflo, Ousmane Sarr, à l'occasion du décès de sa maman qui m'a trouvé à l'extérieur. Et je devais évidemment faire partie de la délégation officielle. Mais pour des raisons, comme je l'ai dit, qui sont indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu venir avec la délégation. J'avais évidemment demandé au ministre Augustin d'être mon interprète auprès de lui pour lui présenter mes condoléances, mais je crois que la relation personnelle que j'ai avec euh, Ousmane et vu aussi son envergure dans la région de Thiès en général, dans le département de Thion en particulier, mais aussi dans la ville de Thiès, tout cela m'autorise véritablement à venir lui présenter mes condoléances. À la suite, évidemment, de la présentation de condoléances que le chef de l'État lui-même a tenu à faire par la délégation officielle qu'il a envoyée auprès de lui. Euh, je crois que c'est ça l'occasion, mais c'est aussi une occasion de partage et de discussion sur euh, une vision globale de la politique nationale aujourd'hui. Parce que vous le savez, nous sommes à la croisée des chemins. On est en 2018, on prépare 2019 et c'est toujours une occasion à chaque fois qu'on voit des responsables politiques, d'échanger sur la situation politique nationale et de dresser des perspectives. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai trouvé plusieurs de ses collaborateurs et alliés qui sont là avec nous, que vous voyez à l'écran, pour que nous puissions échanger et voir quelles sont les précautions que nous devons prendre, notamment dans la ville de Thiès, mais aussi dans le département de Thiès, dans le département de dans la région de Thiès en général, pour pouvoir donner au président une majorité confortable lors des élections présidentielles. je crois que vraiment c'est ça l'objet. Évidemment, en présentant mes condoléances à Omer Sarr, je présente mes condoléances euh, à toutes les communautés religieuses du Sénégal. Parce que vous savez, euh, Ousmane Sarr est un homme extrêmement imprégné de nos valeurs sociales et religieuses. C'est quelqu'un qui est très bien introduit à Tiwawon, à Touba, à Ndiassan, euh, qui est très introduit chez les Laïens. Et en venant lui présenter mes condoléances, je présente mes condoléances à toutes les familles religieuses du Sénégal, y compris même l'Église. Et présente aussi mes condoléances à tous les foyers et à tous les territoires du Sénégal, comme le Djalof, le Kajor, euh, parce que c'est un homme multidimensionnel. Il y a aussi des relations sociologiques à travers tout le Sénégal. Donc vraiment, euh, je pense que c'est ça l'objet. Et c'est une occasion unique de rencontrer Ablaï ensemble de rencontrer Michel tous les autres collaborateurs du pour que nous puissions véritablement échanger et voir par quels moyens véritablement nous devons arriver à massifier, en tout cas notre parti, à aussi atteindre cet objectif qui est un objectif majeur pour nous en 2019, c'est la réaction du président. Je voudrais aussi évidemment saluer la présence du président du conseil départemental à la personne d'Alun Fal, qui est le président, le premier vice-président du conseil départemental de Thion, et dire euh, toujours... Euh, le côté agréable, en tout cas moi que je ressens euh, quand je suis entouré de ces personnes de valeur qui ont aussi un parcours politique incontestable et qui tous les jours en tout cas travaillent pour euh, la réélection du président de la République. Alors, Monsieur le Président, bon nombre de personnalités politiques parlent toujours euh, dans les perspectives de 2019 que le parti APER ou la coalition bernobo Yakar a une léthargie au niveau national et précisément dans la commune de Thiès quelles seront les démarches que vous allez entreprendre pour quand même régler ce, problème La démarche, elle a été déjà euh, imprimée par le président de la République lui-même, qui a dit en des termes très clairs, aujourd'hui c'est le temps du président, ce n'est le temps de personne. Aujourd'hui c'est le temps du président de la République. C'est le seul candidat que nous avons et qui va à la conquête de sa réélection pour pouvoir perpétuer, continuer le travail formidable qu'il a fait depuis sept ans. Je crois que euh, le Sénégal euh, peut mesurer à sa juste valeur les réalisations du président Macky Sall, mais il ne s'agit pas simplement de, de, faire un bilan, parce que les bilans ne suffisent pas à élire un président de la République. Il faut aussi de la perspective, il faut aussi une politique prospective qui permette effectivement d'avoir une offre politique encore plus séduisante envers les jeunes, envers les femmes, envers le monde du travail, pour pouvoir amener les gens à adhérer encore plus massivement à cette volonté que nous avons de faire réélire le président de la République. Maintenant, le maître mot, c'est l'unité. Il faut travailler dans l'unité. Aucune personne aujourd'hui ne peut être plus importante que l'autre. Il faut que nous puissions véritablement calmer nos égaux. Il faut qu'on apprenne véritablement à travailler ensemble, à s'accepter différents, mais à se vouloir complémentaires pour qu'ensemble, dans un même élan, que nous puissions fédérer toutes les forces capables véritablement euh, de, de, gérer euh, cette affaire euh, dans une parfaite cohésion pour que demain, nous puissions en tout cas avoir la victoire au bout de l'effort. J'ai appelé tout à l'heure euh, le ministre Charcanté, le ministre en charge de la politique euh, euh, plan Sénégal émergent, parce qu'il est le coordinateur des mouvements de soutien. Je voudrais d'ailleurs lui dire, à travers cette communication que je suis en train de faire, qu'il y a une niche importante au niveau de Thiès, il va falloir que lui aussi, qu'il travaille dans ce cadre-là pour fédérer. Parce que les partis politiques, c'est vrai, mais il y a, au-delà des partis politiques, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui veulent adhérer et qui veulent venir travailler pour le président de la République. Et ces personnes, il faut les organiser. Et c'est ça qui nous permettra, dans un élan extraordinaire, de massifier et d'amplifier la victoire du président au premier tour, Inch'Allah, en 2019. Alors, quel sera votre message euh, Le message, c'est un message d'unité. Alors, je voudrais d'abord euh, euh, dire à, Omer Ousmane Sarr qui d'ailleurs au-delà de sa fonction de maire est aussi euh, quand même un opérateur économique d'envergure euh, dans la région, de continuer véritablement à travailler avec tout le monde, de massifier le parti, euh, d'élargir les bases du parti, de travailler dans le cadre de la paix, mais aussi de sortir des limites strictes de notre organisation de parti, pour que toutes les personnes aujourd'hui capables de pouvoir véhiculer le message du président, de pouvoir adhérer à sa politique, de pouvoir en tout cas euh, augmenter euh, notre assiette politique, que ces gens-là, qu'ils puissent s'approcher d'eux pour les amener véritablement à aller dans un même élan vers un travail de massification, mais un travail aussi d'organisation, un travail de densification de nos réseaux pour que en février 2019 que le président soit élu au premier tour avec un taux minimum de 60%. voilà euh, président Aymérou Gningue nga nekk président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nekk tamit maire de Mérina Dakar, nekk tamit euh, reste tey yow yaay ganu Ousmane Sane bari nga wax ne tey lan moo waral euh, tey sa teewaay fii. waaw damay tàmbali sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni sama teewaay fii ginnaaw bi fi président de la république yónnee. doon jàll Ousmane ndax yaayam dafa génn àdduna ñu ñaanal ko yàlla xare ko àjjana man fekk mu fi woon mais Ousmane dama diggaaleeg moom loo xame ni bu loolu amee war naa mën a ñëw fii ñëwal suma bopp yëkkati sumay tànk pour ñëw jaale ko ndax li ñu bokk dafa bari ndax Ousmane dafa nekk xaritu kër diine yëpp soo ñëwee Tiwaawan fekk fa tànkam soo demee Touba fekk fa tànkam soo demee Ndiassane fekk fa tànkam soo demee Layeen yi fekk fa tànkam église bi sax suñu soxlaa wax ko nga de boo demee fekk fa tànkam ku mel noonu nag su ñàkkee waajuram kooku da nga war a ñëw jaal ko mais jaar daale ci moom pour jaal Sénégal yëpp ndax Ousmane ñëpp a ko bokk loolu moo tax ma ñëw pour jaale ko mais ginnaaw loolu tam ma jaal Sénégal gépp parce que diggante Jolof ak Kajoor ak Saalum wax naa ni war nañoo mën a jaal ñëpp Euh, soxna si nga xam moo fi jóge kon Ousmane loolu mooy tànk yu jëkk yi mais bi ma ñëwee itam ma fekk fi waa fekk fi ñoo xam ne nii dañu nekk ay collaborateur di liggéey ak moom am na ñoo xam bi ñu tàmbalee liggéey ak moom ak léegi ëpp na ñeent fukki nekk ak moom ñëw di ko jàppale wax dëgg yàlla ma ñëw fekk leen fi mu am ci mbégte ndaxte nag ah euh, dañuy wax ni euh, jataay yu mel nii su ñëwee nga wax ci loo xame ni nii dafay jariñ doomu adama yi jariñ réew mi yàqul dara moo tax bi ma ñëwee ma waxtaan ak ñoom ci wàllu région bi ci wàllu département Tivaouane ci wàllu région de Thiès pour xool naka la ñu mën a àndee gën a yaatal suñu ànd gën a labirante ba li nga xam ne moom la ñu bëgg comme am na ñu benn kilifa rek muy président la république ñu jàppale ko ba bu ñu demee ci élection yi yàlla dimbale ñu ñu mën ko fal dès le premier tour avec taux boo xamee nii

te itam fi ñu jëm ëllëg li ñu soxla mooy dajale mbooloo mépp ndax kenn rek moo soxla mooy président Macky te nag wax dëgg yàlla bu ñu xoolee li mu liggéey ci réew mi xool yéene bi mu am ci réew mi xool itam fi mu bëgg a jëme réew mi ñu war a mën a nag futteeku jàppale ko ba ñu yeggee ci bis yooyu ñu mën ko jox li nga xamee ni nii mooy mën a tax mu yeggale liggéey bi ci jàmm mooy njariñu Sénégal di njariñu askan wi di yokkute askan wi ndax wax dëgg yàlla li ñu gis dafa dal suñu xel te nit nag bu gisee lu dal xelam kooku nag war na ci xar tànk tubéyam ba loolu la bañ a yàqu mu téye ko ndax loolu mooy liggéeyal sa askan mooy liggéeyal xale yi nga xam ne juddooguñu tey te bu ëllëgee bu ñu ñëwee ci Sénégal dañ ci bokk loolu mooy kàddu yi alors euh, ci beneen wàllu yi tamit bëri na ay kàngam ci wàllu politique. ak mm-hmm. yeneen yi kuréel. Mm-hmm. rek yi yëngu di wax ni tey 2019 jege na lool mu nekk euh, li nga xam ne mooy présidentielle yi. Mm-hmm. mais seetlu nañ ab teg tekkaral ci parti APR wala bokk coalition benn Bokk Yaakaar ci biir euh, réew mi rawatina fii ci biir Thiès li ni mel lan la ci ay mégo ñim di àddu. waaw di ci àddu di wax ne tekk warul am parce que liggéeyu politique liggéey la boo xamee bis bu nekk doo wàcc waar wi. dañ ci wara nek bis bu nek te politique du dara ludul euh nga yek nit ñi suñu amé soxla nga dem fa nga accessible ba buñ la soxla man la jot buñu waré wax ak yow ñu wax ak yow amul kenn ku mëna fajj soxla doomu adama yi ba mu jox takk mm-hmm. nit nak mm-hmm. am soxla nak war la ko mëna wax wara jakarlo ak yow wax ak yow lolu farta la mm-hmm. parce que ku and ak nit ñi nit ñi tek la wax la di nga dégg di nga dox ndax politique moy dem ci nit ñi ubbi say nopp di wax ak ñom politique itam moy bo nekkee ci courel mu am lu muy liggéey la muy liggéey fo top nga koy feñal di wax ni kat ñun li lañu bëgg def li lañu def fi lañu nam jëm fi lañu bëgg def léegi nak loolu yëpp likoy defar moy fii ñu toll ci Sénégal kenn rek mo soxla ñun bok ñi far ci benn bokku yagar kenn benn soxla lañu moy fexé ba fal président de la république kon kay xulo ak ngaayo ak jëkënte ak ni ma war a jiitu kooku war na jax parce que kenn moo soxla ñun ñëpp bu ñu demee benn bulletin la ñuy xool benn carte la ñuy xool mooy bu mag yi Sall pour ñu dugal ko ci urne bi kon nag baat bi mooy leen mooy ñun ñëpp nañu ànd nekk benn booloo kenn waxul ni na ñëpp juboo wala na ñëpp bokk xalaat parce que loolu amul fenn mm-hmm. waaye nag nañu téye loolu seet li nga xamee ni tey mooy suñu soxla principal mm-hmm. li tubaab di la contradiction principale ñu réglé ko ko réglé ba bu kuy wax nga wax soxla président Macky Sall loolu Ousmane ci mu ma wax na yaatal na yaatal xolam na loxo ñëpp na wax ak ñëpp ci bi ci département ci département ak même boo génnee Sénégal euh, département région de Thiès foo mën a dem Sénégal te am fa ay nit waxal ak ñoom pour ñun ñëpp ñu ànd nekk benn di xàccandoo di dóorandoo di bokk di xalaat di bokk di nas te li ñuy nas muy nekk lu dëggu ci ñun suñu xol yi ak accepté ko mu bañ a nekk loo xam ne dañ ko wax ci suñu tuñ te bu ñu xaree suñu biir xol bu ñu demee ci biir fekk lu safaan loolu kon nit ñi dañu war a am engagement xam ni tey président moo soxla te itam nag bi mu fi toogee léegi ñun ñëpp gis nañu parce que wedd gis bokku ci te lim fi wone def ko ci biir réew mi tabax ko ci biir réew mi loolu asakay yéeneem la te yàpp naa ni bu toogaatee yéene boobu yàlla mën na ko dimbali ba mu yëgale ko. alors ban message ngay lancé. waaw message bi mooy liggéey ànd nekk benn. Euh, di wax Ousmane koo gis mu bëgg président jàppe ko ni yow toppatoo ko waxal ak moom ñun itam lu ñu ci mën ci suñu wàll pour jéem a euh, euh, fësal seen liggéey boobu dinañ ko def jàpp naa ni bu ma fi jógee même bu ma demee à l'assemblée dina am ñu ma recevoir ñu bokk toog waxtaan ba seet naka la ñuy mën a déggoo ci yenn wax yi maa ngi ko doon wax léegi maa ngi doon woo le ministre euh, Cheikh Kanté comme yàlla dafa def président jox ko ni ko euh, dama bëgg nga fédéral ma mouvement yi nga xamee ni yëpp ay mouvement de soutien la te kooku mu am nekk liggéey bu am solo parce que bari na Sénégal yoo xam nekkuñ ci ay parti politique te dañu am candidat bëgg ko jàppale moo tax dinaa ci wax ak moom fexe tam ba mu togg ak yéen ngeen bëgg waxtaan ba nga xamee ni di ngeen mën a harmoniser

ginnaaw rek euh, bu mu manqué délégation officielle pour mën a ñëw jàllale sa wéjur tay mo fi tew mais également fekk fi ay kilifa ci walu politique di Abdoulaye Samb bu FPR Front Patriotique ak yeneen kilifa ñom Alioune Fall di vice président bu conseil départemental bu Tivaouane ak Cheikh Ndoye bu conseil national de la jeunesse. mais également ak Mbacke Ndiaye di poste collaborateur tay lan moy doon cadre yi monsieur le maire. waaw xanaa ginnaaw bu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salaatu di sant suñu ñaari waajur di sant Serigne kër si ah, di ñaanal Serigne Abdou Aziz Sy Al sama papa sama xarit sama Serigne ah, tey xam naa wax dina jafe parce que tey sama xol dafa sedd tey dama am kilifa gu mag di sama kilifa ci côté yu bari. Ah, sama ñàkk sama waajur génn àdduna may wax ni képp koo xam ne yëg nga sa tànk dikk jaale si ko bu ma la jàppoon benn dinaa la jàpp téeméer bi muy génn àdduna rek fekk na moom mu waayase waaye président bi nga xamante ne mooy suñu président di président Macky Sall yónnee délégation bu mag ca bis boobu te bi mu yónnee délégation bi bi mu jiitalee ministre uriseetin moom la ci teg parce que xam na ni ki nu ñàkk tey kuy jaale ni ma koy jaale moom lañ ko war a jëkk jaale parce que tey mooy suñu député moom lañuy ñuy xoole président Macky Sall tey mooy suñu président groupe parlementaire nekk département Tivaouane bi nga xam ne faa nekk maire kon tey moom ñu koy xoole président Macky Sall waaye nag mu mat li mu doon fees place am macha allah. ñun dañu yàggoon a xeex pour mu ñëw jiite loolu tey mu ñëw di ma jaale si sama kilifa bi wàññi loolu rek moo ko tax a tey moom politique tax koo jóg dugg ci cadre politique dafa xam ni ñàkk na waajuram di ma ñàkk sama waajur mu ñëw dikk tey di ma jaale si voyage la jóge sonn na lool mën naa toog parce que turam ñëwoon na ay jëfam ñëwoon na président Macky Sall yónnee na délégation bu mag kon doyoon na te président Macky Sall di président boo xam ni damay wax ni président bu jara àndal la parce que nit mën nga yëkkati ay milliards di ko jox mu def ko ci poosam mais dafa moo gën ay milliards yëg doomu aadama jox ko cëram xam li mu doon nga jox ko parce que man kat ku ma cof ma wadd mais président moom coful kenn Sénégal yëpp moom sax xamewul ko bëgg ko bañ waaw moom ñëpp lay male kër diine yeeg chrétien yeeg ñëpp la ma yemale ba bis bi mu amee diisoon na lool waaye bi président jógee yabal ñi mu yabal état bi kenn disul waxuma dara mais sag boobu rek jar na ànd ak président tey sama président njëw ci bis bu mel nii ah, di ma ko jaale si fekk fa samay xarit di président Ablaye Samb di ab Ablaye sàmb ak Ndoye doyen Wade Aliou Fall Mbacke Ndiaye ñoom ñëpp tey sama xol dafa sedd Sénégal gépp ma leen mën a indi tey naa leen indi ñu dikk toog xaar sama président parce que nag président Macky Sall juumul waaw li ko def moom tey bu ñu wax Kajoor moom mooy borom Kajoor man na ni mooy borom Sénégal parce que moo amul frontière moo tax ñu jàpp ko ma toogee président bi ma laajee sama xalaat ci département Tivaouane man dama wax président ni ko ci média laa nekk man de département Tivaouane xam naa ni pour mu tege ci yoon mu mën a am ko mel ni ay miiru ñëng xaw ma nekk ku député dafa ko président groupe parlementaire waaw ku mel ni monsieur le maire ay miiru ñëng daal bu ñu ko amoon ñun suñu naqar na faju mu daa di ree parce que waa Jaxate tey nga toog faa ngi toog waaw li nga xam ne président xeebul kenn te am na écoute day déglu doomu aadama yi waaw ku toog ak président loolu nit mën a wax xanaa ñàkk a ak président. wajina ji nag bari na mais boo toogee président boko ko ben ko jàpp téeméer kéro ak mbaka jay mi ño and mais ma toge président ba 23 h 5 minutes bama génné dama futtiku ko gëna takku gëna a gëna dem liggéey. kan lañ ko waxon lepp bam diké def nako lam defit bam diké gis na résultat bi. ko na xamné ni xomu ñu ben département mais département ta mom bi président Émiri ñëwé ak bi mu ah ñu def président groupe parlementaire dafa jël dooleem jël alalam. réunion yu ñuy def réunion bi njëkk a def ma njëkk koo gis keroog dafa yëkkat ni 30 millions ni may naa leen ko moom mii ci Tiwaawan booba nekkagu ma maire moom nekkagul maire élection yi ñëw réunion bi tàng jër ci biir Tiwaawan ma ne waa kii mooy kan ñu ne kii mooy ay miiru waaw nit nag boo ko nee du ma sa morom kaay ma jiital da koy wan la nga koy jiite waaw moom nag dafa taxaw wan ñu ko ci digg Tiwaawan te boobu ñëpp a nga fa responsable yaa nga fa ku nekk naa mën a mën a a mu yëkkati 30 millions may ñu ko ni dem leen liggéey ñun ñëpp ñu dugg ci àll bi dem liggéey ba département Tiwaawan amul benn élection bu ñëw boo xam te ni ñu gañewul ko parce que nag tey dafa ñëw di ma jaale si waaye wax lu baax nit ñi di coroy kooku ci jaamu yàlla la bokk yàlla ko indi ci alxuraan kon dama bëgg Sénégal ñuy roy ci ku mel ni président groupe parlementaire monsieur le député Aymérou Gningue monsieur le maire Aymérou Gningue nit ñu roy ci moom pour Sénégal jëm kanam mais bu doon président Macky Sall sax nit ñu mel ni war nañ roy ci moom pour ànd liggéey Sénégal parce que ànd ak président Macky Sall mooy ànd liggéey Sénégal man nag li may wax xëy na wax ji du neex parce que man lu may wax rek yàlla mooy tax ma di ko wax parce que Sénégal gi kenn mënut yor kenn kenn ku ne la lay yor yaa koy liggéey paysan nag dama toog mun ma monsieur le maire Sénégal li ko yàq mooy santas waaye kon bi viable bu ñu ko tegee ñu liggéey ko maa toog mu wax ma dégg waaye Sénégal dañu bëgg intérêt personnel ñii naa bu doon bu doon bu président diw bu doon président diw doyal nga xaalis waaw fii nag ku yaakaar di jël alal réew mi di ko kase kase da ngay nax sa bopp mais kon projet fiable boo xamante ni day jariñ réew mi ñu teg ko ñu liggéey loolu la président gëm nag mag gis président bu yàgg xam ni kii mooy ki war a defar Sénégal ëllëg loolu moo tax mu futtiku ànd ak président aw ma nag frontière ma futtiku ànd ak euh, suma président kon tey ñëpp jaale si ma neex na mais nag njaalu tey bi moo dàq si njaali ginnaaw bu président parce que ñun kenn lañu ñu gëm kenn la ñuy xool ñun soldaar lañu maag sama président bi ñun lu mekk lu président Macky Sall wax lañu wax lu mu waxul waxul ñun daal soldaar lañu ñun kenn rek lañu gëm président Macky Sall way ñu ne way noo ñu ne noo way noo ñu ne way noo waaw vraiment kontaan nañu tey suñu xool dafa sedd euh, tey dama ko waxoon ci dëj bi man leen dëj la du neex waaye mag moo xam day dund tarixa Cheikh na Ahmed ba am téeméeri at hmm. ah, te naagul hmm. gumbawul hmm. pattul telewul doon xaafis alxuraan di jigéen kon loolu sant yàlla la bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax vraiment daal tey kontaan nañu euh, suñu xool sedd na yéen nag waa Thiès Info li may wax rek ñun dañ leen war a ñaanal parce que yéen di ngeen tas xibaar yi te xibaar ñu koy tas jëf yu baax yi nit ñi def nit ñi di ko gis ñenn ñu xaw a saadi xéena yi di ci roy ci ñu baax ñi kon yéen dañuy ñaan seen kes Info bi dem ba jur ay télé yu baree bare baree bari ci barke seen naama kii na li ñu boole Serigne Abdoul si Al amin moo ñu boole suñu papa suñu xarit mu doon kenn ci tarixa bi ni ma nag mi ngi nii sa maga à door de politique tey jii sama mag la ci tarixa bi sama Serigne la ci xadara bi parce que Serigne Babacar Sy moo xoon ni tarixa Cheikh Ahmed Tidiane ku la ci si Serigne moom nag muy liggéey ci xadara bi ci tarixa bi lu rëy a tarixa bi dafa am ay bunt ku ne fa ngay duggee moom nag dañoo bokk fu ñu duggee muy Cheikh Serigne Abdoul Aziz Al Amine yàlla na ko yàlla xayral àjjana yàlla na ko Cheikh Ahmed Tidiane teeru ah, ñu defal ko feet bu mag a mag a mag parce que ñun kat mooy suñu bunt ci xadra bi parce que Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine moom Serigne Babacar Sy la moom da doon maa nga nekk Tidiane nekk lépp ñu bokk lépp bokk si Hadj Malick waaye Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine la moo tax mën ne ko yaay li booroo tarixa Cheikh Ahmed Tidiane bu doon yow bii di bëri comme neex comme naqari ñu bokk ko nag mu jee dox lu baree baree baree bare moo tax kii li ñu boole dafa bari yàlla xam na ni kii li ñu boole dafa bari mu nekk gari gay nag président Macky Sall tamit ma nekk gay nag président Macky Sall kon nag ànd rek ba àjjana vraiment daal Touré merci kontaan nañu vraiment kontaan nañu voilà Touré